nag ñu seeti expert bi ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen ñëw teew tey ci sama conférence bu njëkk bi nga xam ne maa ngi koy jëmale ci eh, li nga xam ne mooy sécurité publique. Euh, di gërëm ki nga xam ne mooy sama patron di monsieur Daouda Diallo. Ah. di ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy sama patron ndax ci sécurité intérieure ak publique laay waxtaan. événement bi nga xam ne ah. moo am ci côté politique laay wax. Ah. ndax événement bi nga xam ne mooy sportif bi dinaa ci ñëw suba incha allah gën ko yaatal. Mhm, waaye lu jiitu dem ba Diop musiba bi fi am. am na côté politique lu fa jiitu mooy maanaam xeer yo jollee ca Grand Yoff dem ca caravane bi nga xam ne mooy caravane Benno uh-huh. li ko waral ba ñu def ko ci internet bi ne son excellence monsieur Youssou nduur dafa daw war a dawul loolu yëpp dinañ ko leeral ci li nga xam ne moo waral coow li et vous savez que Nations Unies kuréel bi nga xam ne moo tënk àdduna bi yëpp ci mbooleem dëkk yoo xam ne dañu nekk ci àdduna bi dafa am convention bu ñu signé ci li nga xam ne mooy armo dalee ko ci pistolet dalee ko ci paaka ak jaasi ak bombe lacrymogène ak xeetu explosif yoo xam ne day rey doomu aadama waaye bi ñuy waxee loolu yëpp nag ñoom dañoo fàtte ne xeer arme la ah, le caillou ah. xeer arme la bu fekkee ne xeer lu pistolet mën xeer mën na lu ñaari yoon lu pistolet mën parce que pistolet da ngay tiire xëy na bal ba romb wara mu dugg ci nit ki ñu génn ko waaye xeer xeer du dugg ci biir de ah. waaye dafay toj li na ci biir coulé direct fi dalal ñaar ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci li nga xam ne moom mooy sécurité ci xeer dëgg la ki njëkk ki dinaa ko woo mu ñëw léegi mu wax ñu expérience bi mu am ma tegal leen lan mooy sécurité sécurité mooy kaaraange kaaraange nag pour nga installé ko sa biir dëkk il faut nga xam yan yoon ngay jaar pour mën kar li nga xam ne mooy yàq kaaraange nga kar da ngay kar li yàq kaarange kor kar kaaraange mooy tax nga mën a xam lan mooy indi kaaraange. ana sëñ bi monsieur nanga def sëñ bi. salaamaaleykum ça bien. monsieur l'expert maa ngi lay nuyu. alhamdulilah ça va sëñ bi na nga sa xam-xam nañu soxla tuuti. Mhm. pour ma mën ko won ñii ñoo xam ne ñoo ñuy déglu xam kaaraange xeer. Mhm. ak xeer nan la mën a tasee mbooloo ak yan xeetu xeer ñoo am yoo xam ne yow dund nga ko en tant que expérience boobu ci kaaraange xeer. Euh, merci beaucoup monsieur l'expert. Mhm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. oui. Euh, man nag boo xoolee bi ñu nekkee xale ba ni ñu toll ñun dañu daan wër di xeex koñ koñ. oui mais xeex yooyu ñu daan xeex xeex nañ partout ci Sénégal pratiquement. effectivement. Euh, xeex naa ci région yi. waaw presque quatorze régions Sénégal yëpp presque xeex nañ fa. waaw mais koñ bu nekk ci biir Dakar na nga ma ci dakaar koñ bu nekk am na façon xeer bu fa am parce que bu ñu xeexee ginnaaw raay. waaw dañoo seet na waa ginnaaw raay seen xeex xeer bi ñu utiliser. xeeru raay lay doon xeeru raay la parce que raay bee jaar ginnaaw raay xeeru raay léegi mu bëggoon xam nag xeeru raay boobu ban effet lay am ci xeeru raay mooy xeer bu jóge ci gorot maanaam buñ na gorot xeer bu ñuul bi nga xam ne moom lañ defee béton armé xeer la boo xam ne du tas xeer bi mun na dund téeméeri junni yoon ay at te du yàqu ah. buñ la ko sànnee ci cuukel ah. dafay néewi te bu néewee day am infection bi nga xam ne sanguine maanaam deret bi nga xam ne moo doon circulé day toj benni yi dagg ko ci biir maanaam day xotti siditu bopp bi bu dee ci bopp la dal deret bi di daa day senn jaar muur sa cerveau mooy indi gëlëm xeer boobu sax sama benn grand sama benn grand bu ñuy wax mbay jéey waaw euh, moom xeer boobu moo toj bopp bi ba fi may waxe yow nii côté boobu noonu mënu am karaw loolu nañ wax xeer glissé xeer glissade mooy raay bi lu tax ñuy jël raay di ci def xeer lu tax defuñu ndox lu tax defuñu ci suuf lu tax defuñu ci saabu lu tax defuñu ci këriñ parce que xeer bi ci boppam day rëtaxal li nga xam ne mooy raay bi train bi di daw mm-hmm. ritaxal boobu mu koy xal nag c'est pas parce que xeer bi day taxaw ci kaw raay bi mais influence bi am ci diggante raay bi ak xeer bi mm-hmm. maanaam briller bi xeer bi di briller ah. mooy filtré wu ci fer bi fer bi mooy da koy xëcc infusion mu ne mel ne acier ak weñ boo jëlee acier tiimale ko weñ weñ bi day xëcc acier bi acier bi xëcc weñ wax ma weñ buy naaw de weñ laa wax la fer su ko defee xeer glissade boobu bu dalee sa bopp tong mm-hmm. day dalaat feneen soo ko glissé dem. merci beaucoup glissaat ba mu indi problème. beneen quartier bi nga xam ne xeex nañ fa. waaw mooy zone nu Géejawaay jàpp Pikine yëmbal Malika nga xam ne dafa jege géej foofu dañ fa def seetlu façon xeer yi fa am xeeru bâtiment lay nekk. parce que bâtiment yi ni mujjee tabax parfois bu gars yi ñëwee toj ko war fa jaarale tali xeer yooyu la laaj ba xam xeeru ciment bi. xeeru géejawaay ak xeeru Parcelles Assainies ute na xeeru Touba ak xeeru Tivaouane. ndax xeeru géejawaay. dend ak géej gi xeer bi day saf xorom ñu naan la pierre salée day am xorom parce que infusion vague yi nga xam ne mooy sànneeku dal ci xeer yi day xoromu bu xoromee da koy dëgëral bu dëgëral day am benn acide bu ñu naan asako asako nag bu ñu la ko sànnee acide boobu day infiltrer sa bopp lëndëmal say bët yóbbu sa xel nga mel ne dañu lay dóor ay liif si sa nopp war dañ lay mbéj fekk xeer bi ci boppam mooy def infusion salée géejawaay booy xeex géejawaay ah, ah. xale yi géejawaay yi bu ñu leen sànn bu ñu jëlee xeeru géejawaay sànni ko ku dëkk Medina mhm. kooku day am problème parce que xeeru Medina ak xeeru géejawaay am na différence mhm. xeeru Medina day doon xeer goudronné mhm. parce que amul suuf Medina rue 24 rue 13 ngay dégg angle 24 rue amuñu suuf ah. bu ñu bëggee fubal Ibamaar lañ jëm kon xeeru goudron wu Medina ute na xeeru géejawaay nga xam ne suuf see ëpp goudron yi dernier xeer ma lay mujjee xeer bi ma lay mujjee laaj nag. waaw mooy xeer bi nga xam ne ñun daf ñu mës a def équation. parce que ñun foofu lañ mës a xeexee mais xeer yooyu lañu xamul xeeru lan la parce que diggante Padois ba Grand Yoff jàpp côté Ouest Foire. waaw zone boobu. xeer yi fay dal. waaw ñun dañu bëgg a xam xeer yooyu xeeru lan la parce que xeer yooyu ñun jaaxal nañu trop. très bien. kooku maa ngi lay gërëm tàccu leen ko tàccu leen damay woo dëkk grand damay doo woo ku dëkk Grand Yoff koo xam ne fekke na événement yi nga xam ne moo amoon bañ ne Youssou Ndour dafa daw war a dawul ndax xeer mën naa dàq ji kilifa mu daw ndax xeer mën naa indi coow ndax xeer mën naa régler problème si si xeer régler na problème ndax diggante Israël ak Palestine frontière moo leen séparé waaye Israël nangu na Palestine ndax lu tax loolu mooy xeer yi waa Palestine yor yoruñu arme ñu dara ci la nga réglé seen problème ak Israël ñoom bu ñëwee di dóor ay bal waa ay xeer nañuy sànni ah. bu ñu sànnee ba waa Israël dellu ñu récupérer les terres perdues maanaam bërëb yi nga xam ne seen maama fa dëkkoon dañ koy daw récupérer ay xeer la kon xeer réglé na problème boo xam ne fu bal waroon dóor xeer na koy réglé léegi ah, ah, très rapidement sëñ bi ci gàttal foo dëkk. Grand Yoff laa dëkk diggante Grand Yoff am na événement bu fa amoon barki démba bañ naan dañu doon sànni xeer caravane waa Benno yow da koo fekkee war a fekkee ko. waaw man programme bi ba am maa ngi taxaw. yaa ngi taxaw maa ngi taxaw nu mu demee. Euh, programme bi wax dëgg yàlla duna gis waa ñi nga xam ne mooy waa Youssou Ndour. waaw mooy waa Benno waa Benno di def seen caravane. waaw beneen côté bi ñi nga xam ne ñooy waa euh, euh, Khalifa. di def seen caravane euh, ba caravane yi daje ndax ba caravane yi daje ndax boo xoolee caravane Youssou Ndour mi ngi jugee euh, foire waaw ñëw ba ci rond point Liberté 6 jàdd wala dugg biir Grand Yoff ba mu ñëwee euh, ba passé siège Khalifa Khalifa Sall dafa jàdd dugg biir Arafat Arafat dafa jàdd dugg nii dugg biir Arafat waaw léegi nag bu duggee nii biir Arafat tombeek euh, waa xalifa ñu ngi xaw ma fa nan jógee ban seen benn côté di jàdd ci sens interdit bi ñoom tamit dañoo war a yëg pont bi waaw léegi nag ñaari caravane yi daje foofu waaw euh, mais li ñu ci gën a remarqué mooy euh, ba ñaari caravane daje dajee dañ cee am dañ ci am beneen ñàngat bi ñu ci ñàngat mooy ban ñàngat ñàngat bi ci ñàngat mooy bu ne sécurité waaw pour mu sécurité askan wi la waaw bu ne yow sa wàllu bopp boo jëlee ay sécurité waaw da ngaa bëgg ñu sécurité la sécuriser la boo yoree sa chauffeur. waaw da bëgg mu dawalal la. waaw mais dañoo am ñetti ñàngat yoo xam ni danga ko cee gis. très rapidement. très bien. bi ci njëkk mooy. waaw. dàll bii. marakis yi marakis bii. waaw di marakis boo xamante ni nii ba ma ko yëbbee ci waa xalifa togg ak monsieur le maire dafa ne ma marakis bi ñoom moomuñu ko. maanaam bi xeer yi jollee ba jugee ci ñi nga xam ne ñoom nañu wax ne ñoo sànni xeer yi. maraakiis bi ci waa bennoo la jugee te waa bennoo ñu nekkoon ci L200 bi Mbaye ñaa ci la bokkoon. Mhm. Mara Dieng ci la bokkoon. Mhm. Youssou Ndour ca la bokkoon ndax chauffeur ma ko doon dawal. Mhm. Youssou Ndour ci boppam. ak Mara Dieng. nee nañu kat ñaari jëmm yooyu marakis bi génnul seen tànk. gën a génnul seen tànk léegi Youssou Ndour moom 44 lay sol. marakis bi 43 nañ ci. 43 nañ ci ndax da koo sol pour mën a koo sol rek am Mara Dieng ko moom. dinañu wax léegi marakis bi buñ ko sànnee dinañu wax ban yoon la dëkk. ban yoon la dëkk waaye am na ku ne ma Mara Dieng gis na ko ci autour APH muy jaay ay CD. masqué wu marchand ambulant la parce que boobu doon rawale boppam ci xeer yi. xeer yee bari xeer yee bari. beneen ah buñ ci jugee. daal di malaajee ba ma demee ci Youssou Ndour. waaw xamal ni ne ma. Euh, euh, dàll bi dàll sécurité la. ba ma xoolee ay sécurité am xam na ne dàll bi ñoom moomuñu ko. waaw ma génn jël sama oto xam nga man dama yàkkamti. waaw dem ba si la monsieur le maire de Grand Yoff ñu gën koo xamee ci Pape Madiop Diop moom nee na ma dàll bi moom miin na ko. miin na dàll bi ci sécurité yi mu yor mais dafa xamul ban sécurité ko moom ci moom. dàll yi bu nekkul ci sécurité Youssou Ndour nekk ci sécurité monsieur le maire bu Grand Yoff dàll bi ci boppam nag yàlla may na ma en tant que ku xam sécurité dina ma wax fan la dëkk léegi bi fan la dëkk waaye dàll bii moom dañu wax dëgg rek te yàlla tax bu santu Ndour sant Dieng amoo leneen loo yor euh, euh, non seulement euh, anam ba ma traversé tuuti dama faa for benn permis permis monsieur Bodé chauffeur de Youssou Ndour euh, monsieur Bodde chauffeur ba ca boppam kon kon waa bennoo dunoo tiit permis seen permis seen dàll ña nga fa nañ ko for ñele dàll bii ñu ngi laam-laamee ñoo ko moom am ñoo ko moom léegi nag maay atte dàll bii ndax Ndour la sant war a jeng permi bi moom xam nañ ne chauffeur Youssou Ndour moo ko moom waaw ana chauffeur bay bàyyi permis muy wadd te da nga toog ci biir oto bi te te nee nan ma waaw chauffeur bi fi mu toogoon. waaw buntu chauffeur bi. waaw jaar fa ca beneen côté bala jaar. fa la fa la fa la ma génn. d'accord côté ba client yi toog fa la jaar. Ndourène Ndourène Ndour Ndourène Ndour Ndourène Jeng jengeen la Mara jengeen la Mara jengeen la Ndour Ndourène la bii permi permi tal chauffeur Youssou ni chauffeur Youssou